voilà Ibrahima Ibrahima juste quelques mots. Euh, yàlla dogal nga bokk ci ñii nga xamante ni ñoo indil Sénégal lu ñu mësa am muy la Coupe d'Afrique tey président doon leen sargal di leen décorer lan nga yëg ci bésu tey gi. non dolli sant yàlla bu baax dolli sant yàlla bu baax alhamdulilah tey lii. bépp doomu aadama tey moom nga dem ñaan xam nga nga ñëw taxaw fii buntu pale nga nekk ak say waajur sa papa sa yaay sa tante sa waa famille waa Sénégal bi ñëpp ñu décorer la lu dul dolli sant yàlla dolli sant yàlla bu baax te continuer liggéey alhamdulilah bu dul loolu moom aw ma deneen leneen lu ma wax alhamdulilah. am na lu ne seen kanam donte ñu ngi leen di ñaanal maanaam ndam lu rëy li gën a wéy euh, ndax yéen a ngi ciy bàyyi xel ndax soreetul euh, éliminatoire coupe du ñun lii mooy suñu liggéey yàgg nañ ko def comp tàmba nañ compétition tey nañ fete nañ fete mais xam nañ à partir de suba sax wala gannaaw suba ku nekk bu ñibbee sa club da ngay commencé concentré wu juste pour euh, pour match qualification coupe du monde bi ñu am ndax loolu moom ñu am na solo trop te bëgg nañ fa dem incha allah. tey lan mooy sa message ci askanu Sénégal ndax dañ leen gunge boobu ba tey ba ndam la ñëw. waaw ba ndam la ñëw kontaan nañ si bu baax xam nañ ne loolu ñoom suñu ginnaaw lañ mës a nekk dans moom dans les bons moments comme dans les moments nañ ñu ngi te ñun dinañ def suñu kàttalaay kàttan pour ganale leen merci beaucoup yaay booy yaa ngi en direct sur Sénégo àdduna gi yëpp di seetaan dégg sa doom wax ci sargal gu rëy ko defal alors tey lan nga koy wax ak lan ngay wax gone yi nga xamante ne tey rêvé nañ am li ñu am tey. kontaan naa ci ñoom ñëpp yal na leen yàlla sàmm kontaan nañ vraiment ci joueurs yëpp yëpp les lions du Sénégal vraiment yal na leen yàlla musal ci làmmiñ sàmm leen ñoom ñëpp dàq leen iblis sax seytaane defal leen ko ñoom ñëpp ñu suñu waajur yi tamit mu sàmm ñoo kii fi nekk Merci mon fils. Jërëjëf maman, jërëjëf maman. On continue, on continue. On continue le direct, essayez d'avoir